yi nga xam ne ni chaque jeudi euh, dañu koy amal ak euh, Nana Aydara donc tey euh, ñu ñëw ci utilisation malsaine bu réseaux sociaux yi voilà Pape maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yu ñuy seetaan di nuyu aussi ñi ma bokk plateau bi euh, tey euh, dañuy wax tuuti ci euh, wàllu réseaux sociaux bëri na tey ñoo xam ne ni dañ koy utiliser pour doxal seen entreprise ñii di ko utiliser tey jii nii pour xeex benn mouvement wala dénoncer yoo nga xam ne ne mi ngi xew te neexu leen en tout cas ñu am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi koy utiliser ci lu baax mais ci côté bi aussi am na ñoo xam ne ñu ngi koy utiliser ci beneen fànn moo tax dañuy ànd seetaani reportage bi daal di dellu si waat ci ok da ngay faral di utiliser réseaux sociaux yi. waaw damay faral di utiliser réseaux sociaux yi. yan nga ciy gën a utiliser. Euh, damay utiliser WhatsApp Instagram Facebook Snap mais kii laa gën a préféré daal WhatsApp. li tax WhatsApp. parce que dafa man WhatsApp dafa yomb comme bon ci ñun parce que vocal yi da koy envoyé facilement message yi tamit et ba pare dafa da da gën a mën a communiquer ak sa copine yi daal stress sans problème. mais yow euh, message yeeg audio yi ñuy passante ci WhatsApp maa yow euh, boo ci jotee doo ko passé. non j'aime pa yenn message yi du ko du ma ko du ma ko jàllale yenn vidéo yi du ko jàllale parce que ku ci nekk rek bu fekkee lu ñaaw la danga koy xool ci sa bopp. mais bu fekkee lu xam ne lu bien la mën naa ko partager sans problème mais am na yeneen yoo xam ne du ko partager. réseaux sociaux yi am na ku ma nekkaloon te mën naa ne moo moo tas diggante boobu daal moo xaw a yàq. si dama doon waxtaan ak benn jour sama benn xarit ñuy waxtaan daal entre copains si affaire bi jigéen après bon xaw ma nag audio yi na la def ba wër mais moom nee na ma envoyé ko xaw ma nu mu def ba wër daal ba daj si ku jigéen kooku ak ñi ko yoroon daal bëri nañ franchement. après si la daje ku jigéen ki mu ñëw si man wax ma man tam j'ai avoué ma ne ko man la après mu ne ma diggante bi na fi am te on était intimement liés pare woon nañ pour dund relation bu neex. lan ngeen dama leen nag laa di digal. parce que ku ci nekk jigéen nga te ëllëg da am ay doom am na yéen yoo xam ne waroo ko def vidéo bu ñaaw pour nit baaxul kenn du ko partagé ndax doomu adama doo ko yàq parce que bu ñu sa mbokk wala ñu yàq la yow am na yéen ne doomu aadama du ko def parce que nit ñi dañoo war a dañoo war am esprit de déplacement parce que ni yow ça se fait pas dafa ñaaw trop nit def dara taxaw fecc ferbitiram yàq ko du genre nga jël ko tas ko ëllëg ci biir ay njabootam di ko xool de réseaux sociaux dafa grand parce que fu mu la yóbbu xamoo ko xamoo ko yow nit moo tax boo nekkee nit rek am na yenn yoo xam ne waroo ko def man pour man ñooñu seen xel moo gàtt. waaw ñu def attention parce que tamit mën nañ ko def pour foo te fekk na loolu noonu euh, vie wu jàmbur ngay exposé euh, lépp loo def rek boo xalaatee sa bopp rek xam doo ko def daal dañuy xool daal lépp lu ñuy def audio boo xamante ni euh, day du baaxul ci nit yi di ko gis ñu téye ko. loo xamante ni daal bu buñ ko defee day yee fitna wala day indi loo xamante ni c'est désagréable ñu denc ko téye ko supprimer am na fi lépp am na fi kenn du xam ne yow yaa ko yor. tur bi sax dina amaale por ah xam ngeen de ngeen baal ñu saa reportage yi jàll nag nii la on vous cache rien du tout ah on était en train de discuter entre nous. ma jël sama tànk ak ci table ji bàyyi leen ngeen seetaan quoi bon c'est un reportage réalisé par Nana Aïdara ne l'a koy tegal voilà Euh, mooy loolu donc euh, utilisation bu baaxul bu jëm ci réseaux sociaux yi jiri jéeme bàyyi ma <laughs> sama àq seen àq may dal de temps en temps parce que dama leen lakka lépp fi naturel yëpp euh, <laughs> voilà donc Euh, euh, euh, Nana. voilà ah, ah. <laughs> Pape tey moom la ñu indi ah, ñu dégg reportage bi tey réseaux sociaux dafa nekk loo xam ne ni mënatul ñàkk ci dund doomu aadama. ñu ci bëri ñu ngi koy utiliser pour liggéey ñi ñu ngi koy utiliser pour am ñu ngi koy utiliser pour recruter ay nit mais à côté aussi comme je disais tantôt am na ñoo xam ne dañ koy utiliser. pour di yàqal nit am na ñu ci bëri tey jii nii man je dis ni réseaux sociaux fi mu toll sax daf ñoo dépassé parce que fi nga toog ngay toog manipuler tas ko vite fait lu ñuy wax naan seytaan li muy defa mopp lu muy yàq hmm. vite fait ñu bëri dañ koy gëm tey ñaata nit ñoo exilé wu ndax lan réseaux sociaux ñaata nit ñoo gis seen vie basculé ndax lan réseaux sociaux dafa dafa dafa dem ba mujj ji dafa ëpp sax pa waaw dafa ëpp loxo euh, pap sincèrement man surtout damay ñëw ci whatsapp man je pense que ni instant bi mooy euh, problème majeur aux réseaux sociaux yi whatsapp ba mu amee ba tey surtout amatul damay waxtaan ak yow loo xam ne ni waxtaanu biir néeg la lu keneen yónnee ko ko ñu xëy gis lépp tasandoo ci àll bi nga pare vidéo yi même chose bu njëkk ba peut-être nit daan na def dara daanul siiw parce que la amaguñu woon WhatsApp Facebook moo fi nekkoon ay Viber genre yooyu moo amoon mais ba WhatsApp amee ba tey ci lu ñu remarqué ni lu yàqal nit léegi lu yomb la da ngay xëy foo reetaan ci sa biir nit loo xam ne ne peut-être munoon na sax bañ a ñàkk mais erreur mënoo ñàkk ci nit nga xëy fekk ko ci euh, taablu mbedd mi ñëpp du ci waxtaan ndax lan kenn nga wóolu kooku wóolu keneen mm. moo tax il faut faire très très attention ci réseau sociaux yi te comme ni ko femme bi waxee ci euh, euh, reportage bi rek réseaux sociaux moo nekk loo xam ne ni dalay topp sa diiru dund tu as beau dire ni moo vidéo bi passé na peut-être euh, effacé nañ ko mais non à moment mun na mun na ñëwaat donc il faut faire très très attention jamono ji li muy yàq mu ëpp lu muy defar li muy li muy yàq bari na trop dund xale yi mu yàq bari na surtout xale yu ñi xam ne ay xale yu ndaw lañ ne ay moins de dix-huit ans topp bànneexu àddina di foo ba def yenn yoo xam ne ne après voilà dañ koy xëccu ñoom ñëpp seen euh, vie mi ngi mun naa ne mi ngi ci kaw table marché bi foofu ne ñu ngi leen di waxtaanee ñii dañuy préférer exiler wu dem ay Gambie ñii dem yeneen dëkk juste pour pour ñu xawle na fàtte mais daxa après boo ñëwaatee ni même image day ñëwaat à tout moment ci sa dund tamit mën na mën na ñëwaat keroog rek maa ngi lire benn ano ci benn page Facebook saan kooku di expliquer ne moom euh, ba muy def loolu xale la woon moom wax dëgg neex yàlla yàggoon na erreur de jeunesse la woon mais tey dem na ba am doom ba am jëkkër ak lépp loolu soogaat di ñëwaat vidéo yooyu te xamul fan la fan la jógee donc il faut faire très très attention daal comme que. ba tey ñu ngi ciy wax xanaa ñu continuer di leen ñaax rek. loolu c'est pour montrer que rien ne s'efface sur internet mm. donc boo yaakaaree ni sax dañ ko effacer effacé wuñu ko mm-hmm. donc loolu li nga def tey mën na mën na mën na jàpp nga ni tey yëfu jeunesse la ou erreur de jeunesse la wala dara mais mën na toujours retrouver mu nga retomber ci même situation yooyu dans l' mm-hmm. donc c' est pas sûr mm-hmm. moo tax lépp rek toujours dañ koy wax ci plateau bi dañ koy répéter à chaque fois que nii lépp looy def ci internet bi na nekk li nga xamante da nga ko xam xam ne bu njëkk ba dañ leen wax naan avant de parler il faut remuer la langue sept fois léegi moom il faut xoolaat bu baax sa loxo yi balaa ngaa bind wala balaa ngaa wax tamit bu fekkee audio la sur euh, plateforme bii di WhatsApp. Mm-hmm. donc dafa nekk lu nga xamante ni daal euh, à chaque fois dañu foog ñu ci gën di sensibiliser jeunes yi mm-hmm. bien vrai que yenn euh, am na ay loi yoo xam ne teg nañ ko am na yoo nga xam ne ay yoon la lu ñu ko fi teg pour mm-hmm. teg ay daan yi nga xam ne ñooy def yenn yooyu ñaawteef yi ci réseaux sociaux yi. donc yeneen exemple bi nga joxe tamit yeneen dëkk yi jël nañ ci ay dispositions maanaam jël nañ ci li nga xamante ne ay ciy teg. pour erreur yi nga xam ne defoon nga ko di nga nekkee xale. boo màggee mu bañ a mu bañ a mu bañ a nekk ci loolu nag ay évolution la évolution numérique la donc je pense que war nañ mën a toll ci niveau boobu en tout cas ce qui est sûr mooy instant bi nii WhatsApp moom mooy problème majeur u sénégalais yëpp nag man chaque jour dama koy ne bu amee lu important looy wax na moom woowal na directement mais du par parce que dafa wóoratul léegi kenn wóolatul kenn tey ñaata mag ñoo nekk di dund actuellement ni nu ñuy waxee ak yow chantage bari na ay xale jigéen yuy dund chantage parce que lan la yor naa sa vidéo soo ma joxul lii wax ñu ci bëri bëri bëri ñu ngi subir loolu noonu actuellement ni ñuy wax ak yéen mu nekk lu metti lool wax dëgg neex yàlla moo yaakaar ne aussi wax na jigéen ñu bari ñu bëri actuellement ni dañuy bëgg utiliser réseaux sociaux pour am buzz pour nit ñi wax ci ñoom mu jaxal leen des fois ñuy futteeku des fois ñuy def yeneen après nag la la affaire yi di topp boo demee ba nekk mag ba nga xam ne ne yow tu as de changer de vie war a passer à autre chose ci la yooyu noonu yëpp di ñëwaat nga xam ne li erreur de jeunesse la woon ko gisee noonu mu nekkul doy waar daal mm-hmm. amee la surtout jeex ba tey man day euh, li ma si sànni xam naa du bari euh, ñaari côté yëpp lay blâmer dëgg la nit matul mais nañuy moytu suñu kem kàttan kenn matul yàlla bindul ku mat moom rek moom moom mat moom yàlla subhaanahu wa taala ñun nag ay doomu aadama képp lañ ay jaam lañu dañuy juum dañuy tooñ yàlla xëy na léeg-léeg ñu def njuumte goo xamante ni sax xaw na jéggi dayoo mais bu dee suñu diggante ak suñu borom amul problème moom mën nañu jéggal lu ne xajoo nañu mais ñun nañuy moytandiku saa su nekk ndax am na loo xamante ni jàpp naa ne itam soo koy def na yem si yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a maanaam nee ne bàkkaar doy na nit bàkkaar lépp lu mu dégg rek mu nettali ko si na waxin la maanaam tey jii nii am na loo xamante ni soo koy def yow na yem si yow soxlaawul filmer si portable soxlaawul nangam soxlaawul nangam soxlaawul nangam ndax téléphone day réer téléphone. dañ koy sàcc téléphone dañ la koy àbb ma woote mhm. est nga téléphone ñun ñëpp daf ñuy arrivé nga dem fenn si benn xew am chargel ma tuuti waay mhm. bàyyi fa téléphone fàtte koo wala genre wala affaire yooyu noonu yëpp dafay arrivé kon loolu nañ si moytandiku bu baax a baax a baax beneen bi mooy ñi nga xamante ni dañuy profité ci njuumte doomu aadama yi ngir di leen chantage wala di leen weer wala di xaaw yi seen sutura ni leen biir ne ku xaaw yi sutura jaam balaa ngay dugg biir suuf yàlla dina xaaw yi sa sutura te ku yàlla xaw yi sa sutura moom gisuma la mbaaw li fi am mooy ña ñuy sàngante ay sutura na ñuy nëbbalante ay ayib lépp loo xamante ni même boo xamale nit ki sofaan wala nga gisal ko ko ba mu wóor na la moo ko def ñëwal nga nëbbal ko ay ayibam loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo nga xool ko sa bopp ndax amul kenn yàlla moo ko wax de alquran laa lay wax nee na bu doon ku def ma jàpp yéen ñëpp laay amul kenn kuy dox ci kaw suuf te yet bi du ko dal kon bu ñu xamee loolu nañu jàpp ne kon ñun ñëpp ay nit lañ ñëpp ay juum mais pour laaj lekk xaalisu diwu wala pour chantage ko wala pour nangam yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni lu jara moytu la. beneen bi mooy li du Ndiaye wax léegi loo si def dafa ne dañ na wala effacé nañ ko wala supprimer nañ ko yaa ngi nax sa bopp te mag du nax boppam. kon jeunesse bi surtout nañu gën a yeewu si loolu lépp loo xam ne lu ñu siy def la na doon lu baax ndax lu baax a ngi si am na ñu siy jàngale diine am na ñu siy joxe ay conseil am na ñoo xamante ni si la ñuy taxawal ay entreprise ak yeneen ak yeneen yu demee noonu kon nañu xool si loolu ñu jëm ko def mu nekk loo xamante ni lu positif la lépp loo xamante ni lu négatif la nag nit ku baax ku nekk nga jëm ko moytandiku bu la si njuumte dabee tamit nga xam ne njuumte la mais nit ñi nañuy bàyyi di uñunte ay sutura gis nga réew mii ma wax ko si deux secondes bokk na si liy tax yu bëri tey ji tega témbe parce que yàlla si waxin daf ñu jéppi wallahi alazim xam nga tax yàlla jëppuñu parce que kenn ñi si ëpp boog yàkkamtuñu lu dul nit juum. yow ñu gisal ko sofaan. wala gaaw weer ko. wala gaaw waxal ko ko wala gaaw muuril ko li nga xamante ni xaw li nga moom moo di suturaam. non oustaz bu excité nga xam nga problème bi lan la mooy réew mi nit ñi il faut ñu bàyyi delloowaat seen xel si yàlla. oui c'est vrai xam ne dee am na. c'est-à-dire boo toppee boo toppee sax loolu laa d'accord ak yow en fait fi réew mi toll yenn saa yi boo boo toppee sa xol sax da ngay mer ba nga xam ne te jaru ko mënuñu boole banque ak mer garaaw <laughs> faites attention nit ñi wax nañu ba sonn jégin si tem na ko ba dee tayib soosé tem na ko ba léegi màgget na Batal Seck Mboro wax na ci ba tey yéen ñii da ngeen koo wax waxati ko ñun ñii dañoo wax waxati man dootuma ci wax waaw nañ am na kenn koo xamante nii tey mën na si jaare man dootuma wax dara naroon naa lii wala doon naa léegi damay postale di posté man ci whatsapp bi dama ciy bokk. nga yàlla bu ñu am seex ngay am foofu. maa ngi koy maa ngi koy wax. fenn ma yeggali. yàlla daf ñu jéppi man maa la wax lii. parce que dañuy yàlla moo bëggul kuy xaw yi sutura. boo ah, nee nag ku suturaal sama jaam problème yëpp kenn mënu ko wax. àdduna suturaal la <laughs> àllaaxira nit ñi suturaalante ñu te yàlla nag bu nee suturaal leen sama ku xaaw yi sutura jaamu yàlla. Ah. si waxin nañ ma jéggal si kàddu gi. waaw ah, waaw leen da nga xaaw yi sutura. Eh, parce que yàlla bëgg loolu noonu tey jii nit day def bàkkaar kenn fekkoo ko yàlla rek <laughs> toog réccu yàlla jéggal ko mais tey ji ngis ñoo xamante ni yàkkamtu lu dul sofaan am ñu gaaw siiwal ko kenn diwul mais dañ lay yàq noonu te nañu def très attention a la yàlla en tout cas dafa juste Mamadou wax nga nag ba pare nag bàyyi ñu am ay am na beneen problème boo xamante ni bu weesoo réseaux sociaux muy problème wu carte yi carte dañ ko war a dem récupérer pour régler problème bi loolu tam problème la dama ci bëgg a waxtaan léegi donc bàyyi ñu def problème problème par problème au cas par cas et voilà qu'on qu'on change de sujet quoi très intéressant euh, euh, Nana Mante donc euh, muy utilisation malsaine des réseaux sociaux donc xale yi joxe ci seen xalaat nga doon ko partager ak ñun ci télévision Futur Média ñu ngi la ciy gërëm bu baax Euh, Nana 2.0 voilà